layla yonen nga layla xam nga balaa maa jàll Ablaye Fall xam nga nga dëggal li ngay wax dafa am solo buuba wax na ma ko léegi sëy naa ku ni nu woon dinañu toog digg centenaire dafi wax yonent ak bàyyi laay ñoom ñii di ay laay dëkk fii duñ ko gëm waaye yàgga yàgga bàyyi laa yay jël dam li sama waa ji wax na ko Serigne Cheikh Mbacké laay nee na yàgga yàgga bàyyi laa <laughs> dama ni yàgga yàgga ay seen billaahi wallahi taalaay bàyyi daan yàgga yàgga mooy daan waaye nga dëggal li ngay wax dafa am solo soo gisee way wi neex ma mooy xale yi su naan waaw waaw malaaka yi da nga koy téye ne yàlla ëllëg ca bisu yow mal xiyaam yàlla ay seen mii de dëggaloon ni ne bàyyi mooma dama bëgg a tey ñu bokka ci ñi nga xamante ni ñooy nekk ca rang jëkk ya ànd ak Seydina Limaamu ndax lan waaw waaw bi nuy wax ku ko wax yàlla yàlla faj saajo waaye yoneen nga bokk yoneen nga yoneen nga yoneen nga yonen nga bay la yonen nga lay la yonen nga yonen nga waaw waaw yonen nga yonen nga bay la yonen nga bay la imam Pape yaak imam ñu ngi leen di nuyu gis nga sëy naa ñang xam naa ne li ma bëgg a waxtaane tàmbalee gu ma sax mais xaju fi xaw ma nu nuy def xaw ma nu nuy def ndax tey maa ngi doon waxtaane dëggug dëggug dëggug yonent ak bàyyi laay dëggu gi ni mu dëggoo ni mu wére dëggug dëggug yonent ak bàyyi laay dañ war a waxtaane en tout cas daal alxuraan nee na allahu aalamu حيث يجعل رسالته يلا نينا من يلا من رك من كت من دم من ما خم كان لا يتك تكال كغاراتو يونت كنن كدول من خموك الله أعلم حيث يجعل رسالته آية بانجا أنام ñun tiitunu ci yonent ak bàyyi laay bàyyi laay aaya boobu nan ko xool imaam ca la naam yàlla ni man yàlla man rek rek rek kot dong ci sama man-man ak sama sañ ak sama nameel ak ni ma dominé li ma bind فوق خلقه فاعل لما يشاء موم يلا داي ديف لي كان نيه تي سوخلاول اي كونساي سوخلاول كوموي دوماندي افي موم يلا نينا مان يلا مان ريك ما خام كان لاي دينك موتو نبوتو اك رسالتو كون كو ام بروبليم لان لا سي جوبلي اي خمغا سينا لان لا ku am problème mu yonent ak bàyyi laay waxal ak yàlla dégg nga fi ma waxe loolu rek laa jubloon ci aay bi imaam ku am problème bi naan moom laa du moom demal nga wax ak yàlla ndax ñun jiiñuñu ko ko moom it jiiñu ko boppam dan ko wax loo rek mu wax ko beneen aaya bi mu ngi ci Aali Imraan mu ni ya tasu bi rahmatihi man yasaahu wallahu zul fadlil azim ci nee na samay jagle samay jagle man yàlla kenn du ma diriger kenn du ma man maay xool ku ma neex ma jagleel la samay jagle yaxtasu bi rahmatihi man yasaahu man yasaahu dañu am problème ndax ñuulaay gi danu am problème ndax lébu gi danu am problème ndax africain bi mu doon danu am problème ndax sénégalais bi mu doon mais ku ci am problème demal nga xool sa digganteeg sa boroom ndax alxuraan nee na moom yàlla yaxtasu bi rahmatihi man yasha man maay jël samay jagle man yàlla di ko tappal ku ma neex kon ku ku lii rëy ci yow xamal ni rëyul ca yàlla ku mu diis ci yow ñun ñi ko diisul ci ñun diisul ci ñun moo tax bàyyi laay ni pour dëggal li ma doon wax bàyyi laay ni ahlu soodaan bu kenn way lam taj aloo ni nabiyan وما جعلت نفسي نبيا لأن الله ربي وربكم جعلني نبيا bàyyi laay nee na yéen dër bu ñuul bi du yéen a daje fal ma tooguma ba mu neex ma rek ne mana na ki leen moom moom moo xëy rek sol ma lim ma sol dab ma sama joow damma ma sama gopp sëy naa ñu ngi ci ñaari fenu rajab tey ñu ngi ci ñaari fañu rajab rajab weer wu am solo ci ñun weer woo xamante su doxee ba am ñaar fukki fan ak juróom ñaar ca la maam kumandooy génn àddina ñu ngi ci weer woo xamante ni gaa yaa ngi wax rek waaye boroom weer wi piir piir Seydina Limaamu ndax lu tàkk rekk ci weer wii la tàkk ci jeexit gi ba mu amee ñaar fukki fan ak juróom ñaar la maam ku ma doy génnaa dina ibnu xaali ah. inda riyaadatu xamsaanun maal imami seydina limaamu laay jàmbaar yàlla ja waaw ma nga naan ini raaytul baariya day dem tool ànd ak doomu nijaayam daawda ndooy idi raytul baari bi layli mu ngi naan ko daaw na dooy bi daal am na lu ma yàlla woon mawtu imraatin waliyatin samami jigéen joo xamante ni ay mbiram kawe na mu génn àddina lama mada baxda yawmayni ba ñaari fan ya jàllee wa saalisatin sa ñetteeli fan bi yawmal arbaayi maata du mool karami génn àddina fiw sawti bay laay ngay yëkki baat ba sigru laay jàllaala mu ngay tudda yàlla laay laay la daw sëriñ Badu lay lay lay lay lay lay lay وإن دعا kóolute gi daa te dëggu dara manu kaa dara manu kaa puus dara manu kaa yang-yangal ku mu neex mooma ku mu naqari mooma ñun nag sant nañ yàlla ba du gëmee ni bàyyi laay ni pour wan ne la moom dëggu na ci li mu doon in raaytum fi fiili waxaw lii waxisaalii maa wara min fiali rasulillahi imaamil mahdi su dëgguwul woon du wax li mu wax su ngeen gisee ci man jëf wax melo bu mu dëgg rasulullahi ma duma moom bàyyi laay waxaat ni in raaytum man ak sara minni xayran su ngeen gisee ku ma ëpp lu baax ëpp ma lu baax li muy digle ëpp ma lu bon lu muy tere kaay leen ngeen won ma ko ñu ànd a dem ci moom su dëgguwul woon ci wooteem du wax li mu wax waxta doon yi kenn sañu ko wax moom rek aka sañ a wax mag moo fi dégg ci réew mi suy wax danaan roy leen yonent bi bàyyi laay rek ka ni roy leen ma kon ay seen kon day moom moo tax te yàlla moo ni war lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun roy ko comme que moom la nag su ñëwaatee du def ni gaa def ndax walliyu ak nubuwatu bokkul bàyyi laay du walliyu bàyyi laay du xutbu bàyyi laay du xawsu bàyyi ñooñu lanu am ci barke bàyyi lan ka amee kon bàyyi laay mooy kan bàyyi mooy imaamun imaamun mooy imaamun safinatu najaa déedéet imaamun imaamun déedéet imaamun imaamun imaamun imaama eh. tëj naa leen de li baa sekk tëj naa sama gaay imaamu xudratulaahi déedéet imaamun imaamun imaamun imaamun pap pap xam na li may wax Pape xam na fi ma jëm imaamoon. imaamoon. waaw. yow la ñuy déglu imaamoon. déedéet man waykat yi yéen laay déglu. yaay diriger imaamoon. tey diriger leen ma may naa leen. Abdul imaamoon. ya umul xalqa kullawma. hey hey hey hey. dafa am ku la kawaat. <laughs> waa kawa la عبد إمام عبد إمام يؤم الخلق يؤم الخلق كلهما بإلهي في موقف الخسر لا فيهم خلافا يا عبد إمام يؤم الخلق كلهما في موقف خسر لا فيهم خلافا balaa noo julli alaaji fàllu los dafa am yu bari tey mën naa la ko wax ci yuy dëggal yuy dëggal ne bàyyi laay mooma te boroom xam-xam yi maandu yépp xam nan ni mooma at ma sëriñ Seex Mbàkke sunu jàmbaar jooju demee Iran délégation ba wax nanu ko ba tey Mustafa Gueye mi ngeen xam mu nga ca dem si yalla ja Sidi Lamine Niass mu nga ca ki ne woon su genné adina nan ka del nan ka nan ka ca yof fof rek la yam ki togon ci télé bi wal fajri ne nanu bayyi xel wa kër bayyi lay mu ngi ci internet bi lolou da kay sawe dé délégation ba Omar ñooñu ñu ñu ca ñu ngi ci saal bu mag àddina daje fa sa Iran nga xamante ni ñoom seen gëstu yëpp ci imaamul ma yu la Serigne Cheikh nee na ñu ngi toog ñu ngi xaar ayatala silli di boroom xam-xam ba gën a mag ca Iran moo war a def conférence bi ñoom ñëpp toog nañ di ko xaar ñu jekki-jekki ñu ni mu ngi ñëw ñoom ñëpp ñu jug taxaw teeru ko comme ni ngeen di def yettalaa silli ñëw toog ba mu toogee ñu joxe ñaan mu jël ay kayitam teg jël micro bi ne leen ngeen baal ma dafa am lu ma bëgg a wax mais defuma xurujul doo defuma hors sujet li ma bëgg a wax du lu ngeen ma du lu may waxtaan loo mais may leen ma ma wax benn message pour ngeen xam ko te ma commencé sama thème ñépp di déglu naan kii lan la nar a wax mu ni leen ci mbiri imaamul mahdi yu rek laa leen bëgg a wax ca Iran te ñoom Serigne Cheikh Mbacke nee na dem na ba teg ci bëtam or massif boo xamante ni valeur bi ay milliards yi milliards la ñu ngi ko dencal kan lan ko dencal imaamul mahdi yattalaa silli ni leen lenn rek laa bëgg ngeen xam ko ñépp a mbiru imaamul mahdi amul borom xam-xam mambay buy weddi mbiru imaamul mahdi ñépp a xam na ni yàlla wax na ci yonente bi wax na ci ci dina ñëw zuhuru mahdi wa nuzul isa ñëpp ko jàng ñëpp a xam nanu mandarga yi yiy wane ak dikkam ñëpp a xam na ni mandarga yëpp jàll na ci ñu am xam-xam te maanu ñëpp ci yoon xam na ni ñëw na ba dem ñëw na ba dem lenn rek laa bëgg attirer seen jàppaleen imaamul mahdiw mu nekk ab jant buy fenk jant nag su fekkee am na ñu koy gis am na ñu ko dul gis kon limaamul mahdiw jant la fenkana am na ñu ko gis am na ñu ko gisul ndax fii may waxee yow lëndëm na waaye am na réew yoo xamante ni ñu ngi seen bëccëg mu ni leen lii rek laa leen bëggoon wax léegi mën ni Serigne Cheikh mais lan moo waral mu def hors sujet di wax mbiru imaamul mahdi te délégation Sénégal nekk fi imaam Moustapha Gueye toog Seydi Lamine toog ñu bari toog Serigne Cheikh Mbacke nee na ba yettalaa silli waxe loolu imaam Moustapha Gueye moo jug taxaw ca mbooloom Cheikh Mbacke li may wax nettali na ka miraaran miraaran su su tuddee tur rek la mu wax am na mu ne kilifa googu moo jug tàllal loxo mbooloo ma ne ñun waa Sénégal day am na limaamul mahdiw bu feeñ ca saw ba ca Sénégal kom li yetta laa wax ñun day waa Sénégal nanu jàpp ci limaamul mahdiw boobu ba keroog ñuy gisaat beneen limaamul mahdiw xam-xam nag su àndul ak maandu nga war a xam ni gars yi daanu nanu fii lan ko waroon dëgale fii lan ko waroon dëgale fii mambay fii lan waroon ñëw toog ci tele yi toog ci rajo yi wax ni góor gi ci yoof ne mooy limaamul mahdi yu bàyyi yaro nanu ci téye ba keroog ñuy gis beneen waaye nag dunu ko musa def waaye ñu nit xaarunu leen ci bàyyi lay xaarunu kenn ci bàyyi laay ku gëm ñu gëm ku gëmul ñu gëm ku jàpp ñu jàpp ku jàppul ñu jàpp waaye nee leen bàyyi laay mooy Muhammadu Rasuulullaay Muhammadu Rasuulullaay waaye ana loxo yi bàyyi laay la yàlla yónni waaye bàyyi laay la yàlla. baya ba teral fa nu jëm. waaw waaw baya ba ñu boole yaa ringalam tey xayaaru bilaay walaay bayu Abdoulaye ku la way am nga dem fa laay walaay ñoo fi boole yaa ringalam tey xayaaru bilaay walaay bayu Abdoulaye ku la way eh. am nga dem fa bada taxere dey batola ilaay lolo batola eh. ilaay lolo eh. di woote li lay dani the board, I lie. Who you let me lie? lie. By you, Abdullah, who away. I'm going to Fajan. Why? What's up? So lie is alone. What's up? So lie is alone. What's up? So lie is alone. It's a bad, it's a low. Yahoo, Hayahoo. By you, Abdullah, who away. I'm going to Fajan. ياخذ إيه. أنه كان ظلم بالله والله بايو عبد الله كل أوي أم غرم فجنتي كون نانو جولي با باري سينا ما جوخ لا بن بيب تي خاريخو te xam naa ne xale yi dinaa leen ci réeralaat li sidqi daxwatihi ah waaw de xool leen ko balaa noo julli li sidqi daxwatihi daal ma may la beneen jëhran boobu laa bëgg ñu waxtaane ko ci la ndakaar di génne déedéet kay kon nag nanu julli lay lay la